xal bi ya nawwir aw ora maa yóbbu sab barke borom Touba doole Cheikh Ibra Fall asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki julli di mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziare di giital ci nuyoo bi ak ziare bi Serigne Saliou Mbacke Likhlass di ko teg ci loxol kilifaam yi ak magam yi nga xam ne ak mbokki taalibeem yi nga xam ne teew nañu ci bis bi ngir yàlla ak jëmmam ak mbokk ak lu baax di nuyu tey ziare sama mbokk yi ñoom sëñ Saalihu Sekk alxuraan sëñ Mohamed Ngaari sëñ Fàlloog sëñ Maamoor mi di doog a egsi di wax ne rek sëñ Mohamed Ngaari xam naa moom la tijjil ndax moom sax moom moo waroon a def waxtaan wi waaye sëriñ Saliou ko bëggee noonu xam naa ci ñu barkeelu ci ay kàddu ci tijjee ko waxtaan wi waaye sëñ Mouhamed Ngaar yi moo war a def waxtaan wi waxtaan wi nag xam naa dañ koy tënk ci ni ko mbokk mi waxee ndax dafa mel ne ñi fi nekk ci ay jàngkati xasida bari na ñi fi nekk ci ay waxtaankat bari na kon dañ koy tënk rek waxtaan wi it mën naa jëm ci njariñ li nga xame ne sëñ tubaa doon na ko ci nun ak njariñ li nga xame ne sëriñ tubaa moo ngi nu koy jariñ ci ay waxam ak ci ay jëfam ndax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa wax ne suñu borom tabaaraka wa taala daf koo may ay jagle jagle yooyu mu tënk ko ci wax ne nusirtu bi ru'bi masirata shahrin wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura wa utitu jawaami al kalimi man yonent bi alayhi salaatu wassalaamu suñu borom may na ma ñett yoo xam ne man dong maa ko am bu ma waajee bëgg xare ka may waaj a xeexal bu ma waajee weeru yàlla bala maa dal ci kawam fitam day rëf rëfi du du am du am xel mu dal dane ñaareel ba mooy suuf si yëpp fu ma neex taxaw jàppoo fa fu ma neex taxaw jullee fa fu ma neex taxaw tiim fa te damay amub tiim te loolu yonent bi lañ ko jagleel xeet ya ko jiitu woon bal dafa am foo mën a jaamoo yàlla nasaraan yi ci église rek lañ mën a jaamoo yàlla yahudi ci seen addiira dong lañ mën a jaamoo yàlla yonent bi nee na man fu ma taxaw julli mu nangu fu suuf si fu ma neex taxaw tiim fu sama waa xeet faatoo fu ñu jekko mën nañ faa suul te loolu ñëpp sañuñu ko daa ñetteel ba mooy suñu waram dafa maa defal leneen mooy utiitu jawaami alkalimi mooy dañ maa jox loo xam ne bu ko nit doon wax da ciy bind téere yu baree baree baree bare dama koy leeral ci ñetti xët moom yonent bi alayhi salaatu loo xam ne bu ko nit doon leeral ci ay xët yu bari la koy leeral dama koy wax ci benn baat loola nag sëñ tubaa daf ko doon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax sëñ tubaa léppam day yonent bi damay faral di wax ne jikko joo dégg yenent bi sëriñ tubaa di ko ca tagg bu la neexee jiiñ ko sëñ tubaa bu la neexee jiiñ ko ko danaa wax fi ma ko teg ndax ñun ñu mel ne man ñoo sàggan sàgganuk naan sëñ tubaa da daan julli guddi yi te duñ ko def sëñ tubaa da daan wóor bëccëg yi te duñ ko roy sëñ tubaa daa màndu woon te duñu màndu noonu waaye sëñ tubaa du melul noona moom moom daa mat sëñ tubaa lépp lu muy taggee yonent bi roy na ko ca ba noppi ba mu nekk ci boppam mu doog ko caa tagg kon sëñ Tuubaa buy tudd tabeeg yenent bi tabe na tabe moom ba ba dab yenent bi doo ko tudd tabeem nga sëñ Tuubaa buy wax taarub yenent bi aleyhi salaatu wasalaamu tagg na ko ca ba boromam tëbb ko taaram boobu bu sëñ Tuubaa di tudd mën a joxe yenent bi booba roy na ko ca ba mel ne moom moo tax ma ne jikko jooy taggee yenent bi aleyhi salaatu wasalaamu bu la neexee joo xam ne sëñ Tuubaa taggee na ko yenent bi bu la neexee neel sëñ tubaa mel na noona ndax sëñ tubaa du yem ci wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay jikkoom rek di ko wax di di romb lépp lu muy taggee yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu daf koy roy ba mu ne ci jëmmam moom sañ tubaa mu doog ko caa tagg moo tax lu mu taggee yonent bi rek loolaa ngi ci moom moom sëñ tubaa bokk na ci jàngale sëñ tubaa yu leer yooyu nga xam ne ay wax yu yemamaay lay doon waaye di làmboo njariñ lu baree baree baree baree bari benn bis ci njaareem mag ñi dañoo ñëw ku ne bàyyi koo dëkk ba nga dëkk ñëw fekk ci sëñ Touba biñ ñëwee njaareem sëñ bi génn di julli ji nee na penc mi fees dell ak waa pe waa waa waa murid yi murid yi jógee ci dëkk bu nekk ñëw fees penc bi nee na bi sëñ Touba laajtee ana lu waral murid yi bàyyi koo dëkk ya ñu nekk daal di ñëw njaareem mag ñi ne ko Mbàkke mag ñëpp bàyyi koo nañ seeni dëkk ñëw njaareem ndax réew mi dafa bekkoor te dëkk yi naqari na te xam nañu ne lii di njariñ mu ngi ci taw bi te taw bi kat du taw te feeg ñaanoo sa borom ndax xam nañ ne lépp loo ñaan sa borom dana ko def sëñ Tuubaa ne leen waaye teewut xam naa la may ñaan saa borom bi di leen leeralal ne saa borom juboo naag moom ba lépp lu ma ko ñaan mu defal ma ko waaye du lu lu ma jekku rek ñaan ko yàlla daan leen dama bëgg ngeen xam ne yàlla suñu borom tabaaraka wa taala mii bu ko neexoon dëkkee taw te dara du ñor bu ko neexoon téye ab tawam lépp ne gàññ dara du jeex bu ko neexoon jëlee fi taw faw indi fi lu gën a woom ab taw ci yéen dama bëgg ngeen xam ne kooku yàlla digal ne ko yoral taw bi muy Mikaayil sañu ta wàccee toqum ndox te fekk yàlla dana ko wàcce sañu ta téye toqum ndox te yàlla dana ko dana ko dana ko wàcceel sañu ta wàccee te yàlla dana ko téye damaa bëgg ngeen xam ne yéen yéen ay wóoteeg ndigali yàlla yi yéen la saa borom di digal ngeen di bañ a def wala mu mu tere leen ngeen di def waaye malaaka moomu day du def mukk lu dul la ko yàlla digal te malaaka moomu bu ngeen jëfoon seen i ndigal bàyyi ay tere malaaka moomu yàlla dana ko digal mu wàcce taw bi te digal ko mu jëlee fi bekkoor bi waaye yéen yéen a war a dellu ci ndigal yi te bàyyi tere yi waaye malaaka moom moom dofut ba yàlla di ko digal ndigal muy jaawale ndigal ya bokk na ci jawaamiul kalimi sëñ Tuubaa yooyu wax joo xam ne daf koo wax tënke ko alxuraan ndax damay wax ne alxuraan li tàmbalee baqara ba naas bari na ko mokkal bari nañu koy tafsir waaye wax ci nit lu ko jariñ nag daa yomb daa jafe moom te sëñ Tuubaa lay def sëñ Tuubaa dafa wax ne al ibaadu kulluhum musaafiruuna wal aaxiratu muntaha safarihim fa iza wasalu ila llaahi al abraara la fi naimin wa inna al fujjaara la fi jahimin amma al bahaimu fa yusayaruuna turaaban fa yaqulu al kaafiru yaa laytani kuntu turaaba sëñ nee na alxuraan lii dong la jaam ñi dañuy tuxu dañuy tukki nee na dëkk ba ñu jëm mooy àllaaxira bu ñu xasee ba ak si àllaaxira yàlla danaan régler ko yomb na yéen ñi gëmoon yàlla dem leen àjjana ñu dem àjjana yéen ñi weddi woon yàlla dem leen safara ñu dem safara mu des bàyyi ma yi nee na bàyyi ma yi fan la ñuy dem safara wala àjjana sëñ Tuubaa ne la nee na yàlla danaan leen <coughs> yéen bàyyi ma yi nekk leen suuf ñu daal di nekk suuf nee na yéefar bi nga xam ne yàlla nee na ko demal safara day ñee bàyyi ma yi ndax newoon na ngéej moom mu bañ a mu doon bàyyi ma ba yàlla ne ko doonal suuf mu bañ a dem safara nee na mu naan yaa laytanii kuntu turaaba nee na sëñ Tuubaa nee na lii ay alxuraan amal bahaa'imu fa yusayyaruna turaaba fa yaqulul kaafiru yaa laytanii kuntu turaaba te loola bari na ñuy jàng alxuraan di ko tafsir waaye lu jegee noona te yombee noonu cim xel sëñ Tuubaa doo nga ko xam waaw gars yi dañ naan xam-xam soriwut daa làq jege soriwut daa làqutu waaye damay wax ne làqatu na waaye fi mu làqatu it taxu ñëpp xam ko waaye sëriñ bi boromam daf koo defal loo xam ne xam-xam lu mu jege jege jege jege daf koy mën a làqati tàllal ko mu jariñ ñëpp moom sëñ Tuubaa am na naaru gànnaar yu mës a ñëw njaariñ naar yi bëgg a ñëw agsi ci sëriñ bi nee na xat-xatloo bi bari lool bi xat-xatloo bi baree naar bi wax ci xelam ne inna haulaai yuhibbuna al ajilata muy ayab alxuraan ñii daal dañoo bëgg lu yàkkamti nee na sëñ ca biir naan ko man kaana yuridul ajilata ajjalnaahu nee na ñii dañoo yàkkamti sëñ tubaa ne fii ku fi yàkkamti it ñu gaawee la sa aajo fañu nga dellu nga dellu ci sa yitte te ca biir la nekk di ko tontu bokk na ci jawaamiul kalimi sëñ tubaa yooyu dafa dem dëkk bu ñuy wax yeggi dal ca pénc ma am ndaw siy jooy nee naay di jooy jooy metti ba sëñ tubaa dégg ko daan ne nañ ko wal kooku di jooy kooku di jooy ko gannaaw ndax sëñ tubaa daawul xool soxna su kooku féete ko gannaaw Sëñ Tuubaa yëkkati kàddoom ne ko ana lu waral yëkkati kàddu gi mu ne ko Mbàkke damaa nekkoon ak sama borom kër ñu am genn gone gone ga màgg gut mu faatu moom sama borom kër ma toog bàyyi sama yitte yëpp amaatuma borom kër di toppatoo doom jooju di ko ko xoolee ba mu toll ci war a dem kër doom ja faatu Mbàkke daa naqari loolu daa naqari ci sama xol lool moo tax may jooy Sëñ Tuubaa ne patt ba yàgg mu ne ko waa moom moomu dañ la koo abaloon wala dañ la ko mayoon mu ne ko kan Sëñ Tuubaa ne ko doom jooju ngay mu ne patt ba yàgg sëñ ne ko xanaa dañ la ko abaloon mu ne ko waa luñ la abal dem ba di ko jël dégg ci sa kàddu ngay jooy xanaa ku la bàyyi woon doo delloo xanaa ku la bàyyi woon kon doo delloo ndéem dañ la abaloon jël kala ko abaloon jël na ko yow ngay jooy xanaa bu la bàyyi woon doo delloo mas naa dégg ku ñëw fi moom naa ko sama doom ja daa faatu sëñ Tuubaa ne ko janj ba ca Madinatu Munawwara bañ koo xare xotti ko dugal ci yonent bi suuf sëpp ak la léegi suuf sëpp ak joor la maanaam suuf jombatu te war na kenn ba mu wane yonent bi alayhi moom li mu amee woon xam-xam la boo xam ne du xam-xam yi ne ci téere yi ilmi ya ilmun laa yura fil bi la sëñ tubaa wax sëñ tubaa nee man sama xam doo jàng ba fekk ko ci téere te damay wax ne sëñ tubaa moo gën a nite ñëpp li waral moo gën a nite ñëpp ñun ku ci fanaan ci pays ba boo dellusee doo mën a def ak ñi fi nekk ku ci dem France boo dellusee dootoo mën a dund ak waa Sénégal doo mën a naan ndoxum waa Sénégal doo mën a waxtaan ak ñoom ndax lan da nga adopté wu ca climat bële ba mënatoo nekk ak ñii sëñ Tuubaa nag bokkut ak ñun fu ñu fu ñu jógee bokkut ak ñun la muy yëg te buy dund ak ñun day da dund ak nit ñi ci dundin wu sell ci dundin wu tege ci yoon damay wax ne nit ak sañ Tuubaa moo tax sëñ tubaa ñëw ci àdduna di liifantu ñu koy dalal baasin moom sëñ tubaa ñu koy dalal baasin mu toog nangoo dal baasin di jàng ñu koy jàngal alxuraan mu tàmbalee naa si jëm baqara di jëm di tari te pourtant moom moomu ñuy sabaa sin mémara di ko jàngal nee na xafistuma ansalahul jalilu qabla nuzulihi kasa tartilu man li yàlla wàccee ci alxuraan laata yàlla di ko wàccee laa ko mokkaloon te ni mu toftaloo la toftaloo kon bu dellu see fii amee ak nit naan day jàng day liifantu ak day jàng day day jàng alxuraan di ko tàmbalee naa si jëm kaw kooka moo nite kooka rek a nite bu doon doon moom ku dul moom doo ko mën ki nga xam ne nee na ñun ci aadama mu mujj mii lañ bokk te nee na aajo aadama mu aadama yi juróom la te aadama mu njëkk ma bañ koy sakk moom Sëñ Tuubaa nee na maa nga taxaw te ba mu ñëwee ci aadama mu mujj mii la nangoo bokk am ci nday am ci baay te aadama mu njëkk ma bañ koy sakk Sëñ Tuubaa ko wax loolu téere yi nee nañ wa ma aadamun fii mazhabil aqli waahidun walakinahu inda alqiyaasi awaadimu nee na boo demee ci xel dañ ne aadama benn la waaye xel nanguwut ne aadama benn la nee nañ juróom-ñaari adama am